mobilisation bu mag lañ ko tertoo si Mbàkke ministre de la jeunesse ànd ak une forte délégation ñu mën see nemmeeku beneen ministre bu fekk baax si région bi di ministre bi yor wàllub tàggatu bi di Dame Diop ànd ak également COJER national ak ay collaborateurs am. di camarade lañ di say frère di yow mission bu mat nga xam ne zéro. benn benn benn loolu naqare doo ko maa ngi leen di remercier bu baax a baax di leen masawu coono ci naaj bi. di kontaan bu baax ci mobilisation bi wax dëgg yàlla xaaruma ko woon waaye surprise la bu neex bu rafet maa ngi leen di félicité di féliciter jeunes dames yi ci euh, mobilisation bi ak euh, cogère bi maa ngi leen di gërëm di remercier laxaat bu baax a baax a baax ci euh, kii bi ni mu ko ni mu ko organiser maa ngi ànd ak seen ministre région muy Dame Diop nga xam ne yéen ak moomu dëkk moom tamit defal nañu teeru bu mag ak organisation bu mag fële ci Diourbel ñu ngi leen di jox rendez-vous tout à ñoo fanaan incha allah ba suba ak jàmm jërë ministre bi duggee ak ambiance bu mucc ayib xale yi si fan bu mu mënti doon teew fii si entrée Mbacké ñu mën si ràññee cogère bi nekk si gox bi. délégation bu Touba ñoom it kenn demul ñu des si unité bu ñu nemmeeku xale yi joxante loxo booloo teg tendance yi tertu ministre bi ñu nemmeeku ni mi ngi njëkk teg tànkam si département de Mbacké bi ñu ko fale te léegi ñeel wàllu vacances citoyennes yi. convoi bi ànd ak ay moto Jakarta ci décor bu rafet xale yi jiitu ngir na gunge ministre bi booleeg convoi bu Kogère bu Touba ñoom it indaale oto yu takku jublu si kat ngir dérouler le tapis rouge madame Néné Fatoumata Tall mbay ba bi duggee biir Mbàkke jubal si barab bi nga xamante ni fii lañ ko doon xaar ministre bi fas yéene dérouler programme bi ànd si mbooleem président conseil communaux yi nekk si département de Mbàkke yi